dafa yéex a way tamit. kin bis dafa yéex a way. na na biisaat beneen na biisaat beneen. na biisaat beneen waaw. waaw na wayaat ah daa way ñu gañe kat na wayaat. kon nga loo gis moom ah, macha allah man daal seetaan naa ba ñu waaja. waaja non non wax loo xam ci équipe mais dara grand. Ah, sa man je suis cavernien moi. Ah. dund naa trois ans au caverne mais Sénégal xamuñu dara. si Aliou Cissé euh, aussi revoir sa copie parce que. Euh, Diawa Kaïta Baldé n'est pas venu à la CAN pour s'asseoir sur le banc. xaalis. ah ñaata daal la Sénégal ñaata Sénégal gagné. 2-0 dama ko kër gi ma demoon. waaw di ji xaalis. waaw daal dégg yow wax benn joueur. asalaamaaleykum seen internautes di amaan mbégte bu baax contentement seen émission bi nga xam tey dañ ko defoon émission spéciale gën rek xool euh, population bi na lañ gisee suñu gaynde yi nga xam ni euh, ñoo demoon euh, fee nga xam ne mooy Cameroun seen diggante ñoog ak Cap-Vert gagné 2-0 ñu gis ni aussi tamit sénégalais yi am na ñoo xam ne kontaan nañ am na ñoo xam ne kontaan nañu aussi am na ñoo xam ne dañoo découragé équipe bi am na ñoo xam ne aussi ñoo ngi leen di joxe encouragement di leen wan tamit ñi xam ñoom lañ dala defal interview am na ñoo xam ne nee nañ équipe bi des na ñii ni aussi tamit Euh, coaching bi moo xaw a des de ce fait dañuy dem rek xool ñi nga xam ne par exemple ñoo nekk ci entourage ñu laaj leen lan mooy seen xalaat ci li nga xam ne moom la équipe bi def ak li nga xam ne moom la équipe bi mën ak li nga xam mooy seen fort ak li nga xam ne moom euh, lañ war a mën a teg ba Sénégal dem jël coupe parce que loolu lañ fi indi loolu lañ bëgg mu am yàlla jàppale ñu ñu ñaan yéen ñëpp ngeen ñaan ndax ñu ñëpp on est des bu ko defee rek xam nga ñu dem dàbbali ko rek sama sama équipe technique yaa wóor de je salue la prestation de Sadio Mané. Mhm. un footballeur. Mhm. Euh, le jeune Dieng mhm. a du talent. c'est un garçon vraiment à de près et que vraiment le coach Aliou Cissé euh, aussi revoir sa copie parce que ce Diao Keita Baldé n'est pas venu à la CAN pour sur le banc. À mon avis, il doit que euh, Diao euh, euh, jeune doit jouer. Diao Kate il doit effectivement jouer parce que c'est un grand footballeur. waaw moi je l'admire beaucoup. je ne suis pas un entraîneur mais il n'est pas venu à la CAN pour s'asseoir sur le banc. il est venu pour jouer. il y a douze autres joueurs. bon il y a effectivement. il y mhm. mhm. parce que.

salaamaaleykum na ngeen def sonay mais xanaa nag doole ay sénégalaises nag au moins sax ngeen wax seen équipe bi xool ba xam kontaan ngeen wala kontaanoo leen non mais on peut en français c'est pas grave. yow yow mi dégg olof yow waxal yow. loo gis Sénégal loo gis Sénégal say sénégalais football bi. ah football ma macha allah man daal seetaan naa ba ñu ruus waaja. waaja dañ ruus. commencement fii. yow yow aywa damay laaj. ko dem taakale fii ci tànk bi. kan lañ taakale. yow bu wax nu mu tudd nag wax. daal lañ kaa taakale ci tànk bi ñu dem vaar. ñu ruus ko mu génn dem yoonam. yow kan moo dugal tey. bii yow fekk moo fa daa fekk ma dem wutu ji xaalis. ah ñaata daal la Sénégal ñaata Sénégal gagné. dama ko dégg kër gi ma demoon. di wutu ji xaalis. daal dégg yow munoo wax benn joueur bu bu boo xam ne moo dugal ci ñaar ñaar bii. eggali ma bi. waaw léegi bu ñu rouge Cap bi laa la ci laa dem. waaw yow léegi équipe bi kan nga fa xam. man xam naa fa kii Sadio Mané. waaw. ak kan ak Diao Balde. ak kan. nu mu tuddati sax Koulibaly. ak hmm. ak Ibrahima Mbaye. i cum yow yow eh. Mbaye xam naa ko eh, yow pare nga de. dara nag xamul dara. moo yàqoon suñu marché bee paase bi. yaay lu mu def lan la def lan la def. mënutoon daw. mënutoon daw yow daal loolu nga gis. Hmm. ah yow de kan kan gën a bëgg yow ci équipe bi yow. man Sadio Mané moom bëgg naa ko. ndeysaan waaw moo dugal dugal na. ci socialam yi muy def ak jàppale waa dëkk bi ak bëgg dëkkam. ndeysaan loolu am na solo. waa ndax mën na ni am naa alal xaaral ma toog maa ngi joué Liverpool wala leneen. mais dana xaaral damay joué rey boppam daw ba dee. daw na ba dee de ah. waaw nee naa leen nag benn kuddu dong mu ne ma naa mënut a yëngatu. Mhm. bu sañoon bu duggee dugal dugal dugal dugal macha allah. Mhm. waaye yàlla moo dogal nag ne. Mhm. moom dong 11 lañu moom dong mënta jouer day daw li mu mën rek def joxe dooleem daw na ba sonn. kon yëngal dafa blessé instant yi ñu toll nii. eggaliwuma match bi bi ñu rougé Cap Vert. mais ñaanal ko bu baax parce que dañ ko dafa blessé dañ koo gaañ. Ah, yàlla na ko yàlla wéral bu ñu mën a dem euh, kii quart de finale incha allah. doo jooy ci loolu. comme que da ngaa bëgg Sadio. kii jooy. loolu sama jëkkër la de ma jooy ko nag. Eh, Sadio Mané eh, kon Sadio Mané te mu laa takk benn amagul jabar. déedéet dama ne la bu doon sama jëkkër la. ah sa jëkkër yow am nga. waaye sama jëkkër blessé wul ma nga foofu toog ngi doon zibile sànq. <laughs> Ah, waaw waaw. Ah, waaw ba muy moom. waaw ah, ba muy moom. noonu nañ ko ambiance ah. waaw xam nga batuka batuka ak ak ak ak. kii nee naa ko bu Sénégal dugalee woo ma téléphone maa ngi wuti ji xaalis. mais tey dañoo war def baaraam bay bu toog ndax batuka bi lan doon lan lan doon def. ah batuka neex mais moog Baara Mbaye ban moo daa mburoog Baara Mbaye moom macha am na hmm. taj temps daal. ceebu jën nag. saf saf penn mbay. non yow la yow laa gëm vraie femme sénégalaise ñu jaajëfal la bu baax a baax a baax kontaan nañ ci interview bi. jaajëf. ah sama gars yi. yéen a ngi géré. ah tey noo leen gisee match bi ak gagné bi. ah match bi de moom kontaan nañ si trop kontaan nañ si trop vraiment mais dafa jot nag dafa jot ñu kii ci. Mhm, ñu réagir ah, ñu réagir trop waaw. mais Sénégal kañ Euh, prochain match am dañuy xool entre Mali ak Guinée équatoriale kan la ci kan la ci war a kii ñoom suba la ñu war a joué. Hmm. incha élève nga. waaw élève laa waaw. Ah, présenté en français nga wax ni ni nga kontaanee ci joueur yi. moi je je m' appelle El Hadj Cheikh je suis très fier de l' équipe je les suis partout. Hmm. Euh, notamment sur cette hmm. en vrai dire mais on est vraiment fier d'eux. pour cette magnifique victoire vraiment. Euh, kontaan nañ bu baax a baax baax présentation bi léegi yow kan kan moo dugal tey. tey Sadio Mané moo dugal Sadio Mané ak ak waa ji borom réew mi. Ah, Mam Bamba Mam Bamba borom réew mi. dafa yéex a dugg. Ah, dafa war di dugg borom réew mi waaw mim ah. réew Bamba ko wala gars yi kon ñu koy dugal waaw mim réew Bamba ko moom. kon daaw di dugg réew mi Bamba mooy kii ko moom. dafa dugg rek ñu gañ ak ñu xëcc ñu benn copain bi kaay yow loo ciy wax loo ci sànni lan ngay sànni. waaw ci wax waxal wax. Eh, eh, <laughs> a waay tamit. kin bis a waay. na biisaat na na biisaat beneen waaw. waaw na wayaat daa way ñu gañ a kat na wayaat. kon gars yi dégg ngeen kin bis da nga way dégg ngeen incha allah. mais gars yi dañu ko araftu woon nag daa mel de. waaw gars yi dañu ko araftu woon moo tax mu yéex a génne mais daa génn rek victoire bi ñëw kon na biisaat beneen. noonu la ko demee dañoo noppi waaw nañu noppi waaw wax ji wax baaxul. loolu la jaajëf gars yi neex na de. ah ah gars yi loo gis ci match bi. <laughs> Ah, match bi neex na neex na trop saa yi sénégalais yi góorgóorlu lañ dara de. Ah, waaw da nga def waaw baax na. <laughs> ñu wax ñu wax lu tax lu tax xamuñu dara non eh, non non non non non non wax wax loo xam ci équipe bi. mais xamuñu dara grand. waaw ah, lu tax ne sa man je suis caverdien moi. dund naa trois ans au Cap-Vert mais Sénégal xamuñu dara. waaw lu tax xamuñu dara. danoo mënut il faut marquer des buts. L'attaque est nulle. Aliou Cissé n'est pas un technicien. waaye waaye waaye grand bàyyi ma waay waay du technique waay bàyyi ma waay. non da ngaa mel mais il faut il faut nga taxaw ñu waay il faut nga taxaw taxaw taxaw ñu waay. grand bàyyi. Eh, mais Massa waay yàlla yàlla nga tane jàmm. kontaan nga daal suñu kontaan nga daal. barke Sëñ Fall kontaan rek di ñaanal. voilà yokk rek yokk ca kanam. Ah. waaw waaw ndam li rek ndam rek. léegi Sadio Mané nag Sadio Mané. Sadio Mané kay yal na ko yàlla lafal cat. waaw du mu. may ko wér may ko gudd fan. moo dugal tey de. billaahi wallaahi yokk rek ba yëg ko. incha allah ok jërëjëf. a ci euh, loo gis si match bi tey. waaw match bi moom xawoon am problème tuuti tuuti rek mais neexaayam mënoo koo xam parce que ñee dañ leen a ruus ñaar. mais Sénégal daal nii mu def nii surtout ma booy Thiès moom bu ñu continuer classement tey bi daal macha allah. kontaan nga ci Aliou Cissé. naa ci waaw kontaan ah, mais yow yow yow laa gis ku ku kontaan ci Aliou Cissé tey. non am na erreur mais tam erreur mënut a ñàkk parce euh, kenn ku ne dangay wut. Mhm. te kenn ku ne dañ laa yeb. mënut a yombee noonu mënut a yombee noonu. Mhm. parce que ngay xool ki nga gaañee yow moom it li nga bëggoon la bëgg. waaw ah, tey tey tey tey ba ba ñaata joueur moo dugal. waaw Sadio dugal na. Mhm. ak faruma ki sax kii sori booy booy boobu kii numéro 15 bi. mooy kan. Ah, kooku jàpp mu tur bi nag. ah yow seetaan équipe nationale te jàppoo tur bi. non maa ngi koy toog seetaan tey ndax tey moom damaa jëloon pour seetaan ko moom. tey xanaa xanaa kon mu amoon confiance suñu suñu suñu gaynde. non départ moom amoon confiance moom. départ amoon confiance. ragaloon. waaw ragal naa benn côté nag. ah mais instant yii ñeme nga wala wala da ngaa ragal. waaw ñeme naa benn côté ragal naa benn côté. ci ñoo ragal. Ah, ci Sénégal. ah ci kan ak ban équipe. am ah, des na des na. kan la ñu amaat kan la ñu amaat comme comme. Ah, amee ma génn tey xamaguma kan lay am waaye ñi des moom ay ponko lañ. Hmm. waaw. ah mais attaque nekk. jox conseil waaw na na déparaat classement tey bi rek. bu déparaat ko. waaw ah mais mais mais changement moo dugal de. même mais kooku noonu tam euh, changement moom ala kulli day am équipe bu amul changement moom baaxoo. parce que ñoom ñëpp yam kii ci banc beeg départ yëpp mais boo classé ak benn baax encaisse boo bit baax. waaw Keita Baldé dégg naa de moom tamit jéewul. waaw suy suy ut tey suy. mais loo gis ba tax ñu waaw Keita xam nga départ match bi daa bari ay ay fautes yu mu doon def xëy na yooyu rek moo tax mu koy mu mu mu mu téye ko. pour mais mais joueur la boo xam ne am na rentabilité ci ci équipe bi wala. waaw deuxième euh, deuxième période moom bu duggee mën naa am dara mais problème mënu mënu moom. mënu départ. ok kon ok waaw merci beaucoup. boo suñu joueur yi en fait. ah seetaanuma waaye nag euh, maa ngi leen di soññ daal ñu gën a góorgóorlu gën a am jom xam ne ay gaynde nañ gaynde day xosiwaate waruñoo toog sax ay Cap-Vert ñuy nangu di def ak ñoom euh, ña xaw ma ña nan la. ñaata la ñaata la match. 2 kan moo dugal. Euh, kan kan Bamba lañu wax ak kan ak Sadio ah Bamba Dieng ak Sadio Mané mais war nañoo romb foofu. ah mais tam Cap mais Cap Vert dafa nii la Cameroun de. waaw mais du ñu mais Sénégal moo mën ay Cap Vert ak Cameroun moo leen pour doole nañ am jom nekk ay national nit da bëgg sa réew sa réew jaral la lu ne nañu gën a góorgóorlu gën a fas jom. daal loolu nga leen di ji loolu nga conseil léegi ci wàllu coaching bi nag loo ci bi daal man Aliou Cissé damay wax mu gën a lu gën a gën am pas-pas gën a indi tamit système boo xam ne ñoom ñëpp danañ ci déggoo. ah mais ñi ma gis ñu bëri ah, dañuy kaas ni Aliou Cissé kat ah, nangam nangam di wax loolu déedéet sénégalais da cee bëri ci ñoo xam ne loolu mooy seen jikko Aliou Cissé deful dara nañ ko sojjaat mu gën a defaruwaat rek loolu rek la. ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax. bu baax jërëjëf shukran. ba xam loo ci gisoon. match bi bon boo xoolee c'était un peu kii quoi mais le jeu était am na am na monté en puissance vis-à-vis comparé ak yeneen match gis nañ monté en puissance boo xam ne c'était intéressant quoi parce que boo xoolee jege jógee ci 1 ñu ngi ci 2 actuellement parce que boo xoolee volume de plus euh, boo xoolee Kalidou Koulibaly ñëw na moo loolu doon xaalis ñoom daal on attend que prochainement affaire yi gën a évoluer bien que on aurait pu battre le presque pile de 2 euh, bi à 0. yow instant am nga confiance ci ci ci ci suñu gaynde si parce que gars yi ngi wax mais boo xoolee ñu ngi am on a été des compétiteurs boo xoolee fi ñu jógee ak fi ñu ñëw tey am na montée en puissance te compétition montée en puissance la rek équipe bi jógee si 1 ñëw ci 10 moo gën kuy jógee 10 di wàcc comme la le cas de Nigéria. benn match la joué gars yëpp yuuxu après mu chuté voilà ñun nag li ñu doon xaar ñun compétiteur yi nga xam ne dañu jaar si compétition li leen doon rek attaqué après à la fin dafa. dafa chuté voilà moo tax ñun nag li ñu gis si mooy man ba gars yi di yuuxu dama ne damay gis naa ne euh, comme li ñu wane tey def na ñëw nañ si 4 virgule 5 donc ñu noté leen biir ñëw amee 6. ça peut évoluer loolu. loo gis ci chute bi nga xam ne euh, loo gis tam aussi tamit ci coaching bi. coaching bi Aliou Cissé na mais benn erreur la def le le a marqué le but Bamba Dieng bon dafa doon doon titulaire. Boulaye Boulaye Dia doon xaar parce que Boulaye Dia actuellement boo xoolee il se précipite te bokkul ci jeu bi actuellement système bi ñu war demee bi ñu war a pour mën a am le jeu qu'il faut bokku ci. mais doon joxe kan nga koy jox. Sadio Mané évidemment parce après qu'il a marqué le la bàyyi xam na ni jaanam wàcc na waaw moom lañ jox meloon. gis ngeen daal saa yu ne vrai gaynde la en fait. kooku mu dépassé na gaynde parce que dama ko xaw xam tuuti parce que on a été dans la même catégorie catégorie junior en championnat. at mu nekk ma nekk Atlantique mu nekk au niveau de Génération Foot. footballeur nga en fait. ah footballeur. ancien footballeur. waaw <laughs> ah, naa ko si ay terrain mais xam ya ah. kontaan nga suñu gaynde bon kontaan nañ mais ba tey daal ñun ce qu'on attend d'eux mais la coupe parce que Sénégal amatul lu muy prouvé si plan national international sur le plan aussi donc li au moins que ñu mën a siggi tuuti quoi gis nañ tamit aussi nga sol maillot yi ñu xam ne rek instant am nga sa réew en fait. toujours fier man je suis man moom bu dul sax buñ même si on perd je avec gis naa ñoo xam ne dañuy découragé te dans la vie ne faut jamais se décourager. ñun li ñu gëm ay compétiteurs lañ. Euh, ah, bu dul football bi sax Sénégal ñun moo ñor ko ay compétiteur lañ ko. ok jaajëf gars yi ok merci beaucoup merci beaucoup baax a baax a baax a baax. jëlal ma jëlal ma sama papa ji. ah. ah mais loo xam ci Sénégal non loo xam ci Sénégal di ko. Sénégal la mooy loolu. Ah, ah di nga faral la ndax Sénégalais nga. Sénégal la waaye mooy loolu moom. Ah. Sénégal moom. waaw nañ góorgóorlu rek. nañ góorgóorlu waaw. waaw ah, kon baax na kon baax na suñu père jaajëf gars grand jaajëf. léegi. Sénégal bi ngeen di wax boobu ba léegi tamit ku baax. ah fexe amul de dañoo bëgg ngeen ngeen wax seen xalaat rek. <laughs> yàlla na jàmm yàgg. <laughs> yàlla na yàgg ci la yàlla na jaam yàgg damaa xam ni Sénégal. waaw. ah. yàlla na jàmm yàgg daal gannaaw ni ngay waxee ni wóolu woo suñu équipe bi. ma ne ku baax kii yàlla na jàmm yàgg daal laa lay wax. gannaaw yi bi. yàlla na jàmm yàgg daal parce que man damaa jàpp ni équipe. waaw équipe warul ëpp doole entraîneur daal. yow loo gis kon ci différence su équipe ak entraîneur. équipe dafa ëpp doole entraîneur bi. kon attanul bi attanul équipe bi. attanu ko attanu ko li am tey ñëpp seetaan nañu bi ñëpp seetaan nañu match bi gis ni ñu fubalee tey jii nii mais bi bi bi bi Cap Vert amee boobu noonu d'accord naa mais dafa war a yéegal équipe bi. fubal 3 5 3. def 3 défenseurs fubal fubal défense plat. tamit benn instant ni Sénégal équipe bi moo ëpp doole Cap Vert mm. le problème en est que mooy problème coaching la ñu yi baaxul. ni ñu defee changement yi baax. yow ko bëgguñ dugal ay comme changement. non dama gis Pape Matar Sarr. mënul ñàkk ci équipe nationale Sénégal. Pape Matar Sarr yow la nga gis ki ki dugal tey nag. waaw waaw ba ñooñu ñooñu xale yi la man man man xale yi laa gëm ay Pape laa gëm ay Bamba ay Papa Gueye mais xale yi war a ay lupi équipe bi ay xale koy gagné match yi ay xale koy gagné a a yaa booy. daa Amélie laa tudd. Amélie. waaw ah loo wax ci suñu suñu suñu gaynde yi. ah man seetaanuma match bi sax. Hmm. waaw loo ci gis. non dama ko seetaanoon ndax li ma njëkk gis si premier match bi moo dalul sama xel ndax man moom match boo koy seetaan da ngay ànd ak pression. exactement waaw loolu moo tax kam ka demee na nii aw ma lu ma wóolu damay toog rek xaar préféré ba match bi jeex ma toog xaa résultat yi ñu wax ma ko. waaw loolu la waaw da da nga ragal. équipe nationale dafa dafa dafa dafa diis daal. Ah. dafa sacré daal. waaw boo bu sa équipe di football doo nekk si jàmm tant que pare wuñu léegi nga jàkkaarloo seetaanoo télé ak nu mu mel ngay bëgg a dee des fois ñu def loo xam ne xamoo ko wala entraîneur bi teg loo xam ne ne xamoo ko doo mën a nekk si jàmm. léegi mais tey kan moo dugal. Hmm? seetaanuma match bi laa la wax man yow laa xaar wax ma résultat bi damaa génnoon seetaanuma sax match bi ndax man damay ànd ak pression. mais 2-0 la. 2-0 la. ah kontaan nga kon bi. waaw kon kontaan naa si mais nañu gën a am jom ndax tey mun nañ laa bégal suba tamit ñu def leneen waaw nañu gën a nekk jàmbaar si match bi moom football nañu waaw li ñuy football football nañ ko ñu ngi trouvé encore euh, équipe bi mu ngi ñëw ndànk-ndànk waaw man leen laa d'accord nit ñi ni ñuy ŋaññe el kii Aliou Cissé Aliou Cissé Aliou Cissé deful dara deful lenn li muy li muy deful lenn li muy football loo ah, li muy football dugul ci biir terrain bi de ah moo choisir kenn sénégalais choisiroon ko eh, jour jour yi mu indi moo choisir boppam moo moo moo eh, moo def ay classement ah système de jeu moo ko joxe dañ ko jour yi ñoo ko war a euh, respecté. waaye loo gis système de jeu bi. baax. baax man aw ma leen lu ma ci gis lu du baax. kon suñu déggee loolu joueur yi nga jox toor en fait moom laa leen jox. parce que euh, rigueur bi ñuy war a am dañ ko def Aliou Cissé dugul ci biir terrain bi de. man loolu laay bañ gis nga Aliou moo gën a bëgg a su ko su sañoon jël coupe d'Afrique indi ko fii ñu ne eh, mooy premier entraîneur bu ko fi indi mais nag nañ nañ nañ leen di jàppale di leen ñaanal ah di yokk ñaan di leen gën a pousser encourager loolu noonu damay gis ñag yi ah dañuy encourager seen jour yi. Sénégal instant yi mu toll dafa découragé quoi. gisuñu benn benn benn effet bi Sénégal dóore deux jël ci Cap Vert bi. Euh, gisuñu effet comme réaction ko non xoolal premier euh, euh, premier quinze minutes yi Cap Vert mat na nu ñu def si kawam dañoo sab si kawam ah quinze secondes lañ def Sadio Mané trouvé ba bi ñu xoj leen mën ñoo récupérer benn bal seen course mooy wax nii moom laay déglu nee na xam nañu Sénégal moo ñu ëpp doole foofu dañuy taxaw ah, ñefe défendre ah lu ñu amee dara dem lu ñu amul ñu taxawaat xaar xam nañ suñ génne Sénégal dañuy escoré ñoom ñoo ko moo ko wax moom laay déglu ni kon boog nañu nañu jàppale équipe bi pousse leen. kon ban stratégie lañ mën a tegaat pour euh, Sénégal gagné. équipe équipe bi ni mu ñëwee rek baax na ni mu ñëwee joueurs yi ñu ngi ñëw ndànk-ndànk. mais yëngal saa man dafa blessé non après man canal laa doon seetaan léegi. léegi léegi après nee nañ saba amul problème jógaat na mu ngi ci jàmm waaw. en résumé daal loolu loolooy may euh, ñi nga xam ne par exemple nii ñoo lay seetaan. bon yéen nag moom ñi may seetaan ñëpp dama leen ñaan ñu ñu ñu ñu équipe bi pousse ko ñaan te bàyyi euh, critique bi critique d'accord dina am mais ah, Sénégal 150 entraîneurs moo fi nekk. dëgg la de sax laay wax moo fi nekk su defee lu baax ñu ne lu bon la def parce que ku nekk day xëccu même fédération sax dañuy xëccu. concurrence boobu la ñu war a bàyyi nañ ko puus ba mu jël su ñëwee nag ñoom ñu dootu xool leneen lu ñuy def. ah jaajëf jaajëf grand gis si match bi. waaw match bi avant tout dañuy sant yàlla bu baax a baax euh, di féliciter joueurs yi di leen wax que ni c'était pas facile bon ils ont joué euh, un match très difficile mais heureusement que ni génn nañ si bon. nii la mën a demee parce que Cap-Verdiens yi tamit bu leen fàtteekat yi euh, benn équipe la boo xam ni Euh, soriwuñ ñu dara te liñ bëggoon ñoom lañ bëgg mais heureusement daal euh, gagné nañ match bi te victoire rek moom moo compté woon quoi. mais dégg nañ tamit nit ñi nee naan euh, équipe bi doxul. waaw ah, équipe bi doxul d' accord naa si le plan du jeu man d' accord naa parce que am na tactiquement. bu ñuy football ak benn équipe ñoom ñu ma ñu rouge leen dès les premières minutes euh, man li ma jàpp Aliou Cissé tactiquement waroon na mën a changé équipe bi que pour que ñu gën a offensif. la changé euh, changer. ko bon supposons comme il jouait avec deux milieux deux milieux défensifs da ngay wàññi benn milieu terrain euh, comme def benn six tampon jouer avec quatre deux quatre au lieu de quatre deux quatre. au lieu de 4-4-2 quoi il joue avec 4-2-4 su ko defee flanc yi ubbeeku. Euh, ñu jouer avec deux attaquants fixes avec euh, deux deux ailiers quoi là boobaa dina gën a dina dina gën a euh, jeu bi dina gën a dina gën a gaaw quoi pour ñu marquer bi plan boobu de def ko mais gis nañ def na à deuxième plan mooy que def changement yi. bon changement yi dafa yeex chaque jour li ñuy reproché Abdoulaye Aliou Cissé mooy changement bu yeex nga équipe tactique la yow teg nga schéma bi doxul da koy changé nga indi leneen. mënoo ñu changer indi la équipe nationale loolu laa ko dul pardonné quoi man pendant cinq ans mënuñu am onze types chaque match ak beneen onze loolu déjà pour nga am euh, pour automatisme yi ñëw ak cohésion bi am si équipe bi du gaaw chaque match ak équipe bi muy indi quoi man foofu laay jàppee que ni day des tuuti quoi oui. daal mooy sa li nga xam mooy. sinon maa ngi remercier euh, boy bu baax a baax bon ils ont mouillé leur maillot. wax dëgg yàlla joué nañ match bu baax a baax c' est tellement difficile nag c' est tellement difficile. parce que que bul fàtte ni Cap-Vert Cap-Vert ak Cameroun. waaw waaw boo gisee ñoom euh, seen premier tour li ñu nga xam que ni ñu nous sommes une équipe à battre ñun ñëpp ñu bëgg a gañ du yomb de mais comme ñi ngi gagné ah. alhamdulilah bul fàtte que ni France bi nekk champion du monde euh, seen trois premiers matchs baaxul woon. te dañ doon gagné étape par étape ba deuxième quart de finale beneen suuful ñëw ñu eh, éliminer équipe yëpp gagné finale bi. dégg naa aussi tam ñu ne euh, Sénégal équipe bu joué moom euh, dañuy défendre lu ci ëpp te nit kuy défendre di nekk ay neuf joueurs yoo xam day nekk ci kii pour nga dugal day jafe aussi. bon il faut ngeen comprendre que ni tamit euh, man compétition bi yëpp suma benn yoon boo xam ne équipe national préparé na ko amuñu match ko gaaka ni éliminatoire yi ak coupe du monde bi jege wonte woon na ba ay match amicaux xaju fi mais équipe il faut nga am cohésion am automatisme yi comprendre nga joueurs yëpp yëpp yëpp nga xam dañuy am entente mais loolu moom moo si amul te yooyu pour nga am ko il faut des matchs euh, amicaux loolu boo ko amee di nga mën a génn sa onze type quoi loolu pour man loolu moom mooy des daal. ñu lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax ok jërëjëf. père loo gis si match bi. match bi. neex na neexul. Mm-hmm. parce que waroon nañu mën a def lu gën a waaw lu gën a tàngali ak suñu joueurs yi nañu leen xamee ci dans le monde mais façon football bi la ñuy football ba pare nag mën a équipe bi d'une certaine façon. ba équipe bële daal di wàññeeku nekk neuf joueurs. mais dégg naa dañoo feebaroon tamit. ñan ñoo feebar ku feebarul. ah mais joueurs dañoo feebar. yan joueurs. joueurs Sénégal leen xaj bi football ci kaan bi yëpp dañoo feebar. amul kenn ku ci feebar amul kenn benn équipe bu ñëw boo xam ne indaalewul malade. ah mais tam dégg nañ sëriñ neen dañoo téye suñu joueur. sëriñ yan ban sëriñ. ah suñu sëriñ dëkk gëmal sa bopp ngay gëmi ay affaire ay xonk. non man non sëriñ yee ko wax ñun waxuñu ko. ah yan sëriñ sëriñ yan moo sëriñ ban sëriñ. ah sëriñ yee ko wax ne nag suñu joueur dañ mënuñu sax do dóor. sëriñ ak ay bagaas ak yooyu xam nga lu koy maye jom ci terrain bi la. terrain bi moo lay may nga mën nga mën a gañe li ngay li ngay wut. Mhm. jom moo la koy may. Aliou Cissé am na chance borom chance la daal. yàlla daal may na ko chance moom. lan la ko may chance ko mooy saa di ko xamul dara. non non ba léegi moom mi ngi yor équipe bi mais mi ngi gagné di dem rek. mais am na chance parce que tout le temps day tombe yu baax. léegi kuy tombe yu baax. di gagné di dem di gagné di dem am nga chance quoi. Mhm. mais résultat bi dafay des tuuti parce que il faut ñu am ñuy dugal. exactement da la ñu amul dañoo amul kuy dugal daal. waaw amaguñu dugal kat quoi. ah yow gisagoo loolu Sadio Mané moo ngi dugal. Sadio Mané rek moo war a dugal. ah mais moom la am bu football bu footballul nag. kon Sadio Mané loolu nga gis yow. mais bu fekkee ne footballul lu ñuy def kenn du dugal. waaw ah, mu dëgg la mais tamit mais mais Sadio Mané lañu am comme leader bu ñu moo xam ni par exemple mën nañu wax ni. mooy loolu moom i booy ah, Sadio bu dee leader moom doo dong mënul football match bi yëpp de. ok kon ñu jaajëfal la bu baax a baax. problème ñoo faral ah, di Ah, ses internautes ah, tey nag ah, comme match bi rek ci la ñuy ñëw. waaw waaw waaw. noo ko gise waaw kontaan rek. kontaan rek waaw comme am nañ victoire moom te victoire lañ doon ñaan moom. Hmm. dañ ci dañ koy rafetlu rek kontaan ji quoi. tey kat moo dugal. Sadio Mané moo dugal ak euh, Bamba Dieng. ah Bamba Dieng moo dugal. waaw allo gis si Bamba Dieng tey. ah vraiment kontaan waroon naa teel a dugg de. waaw waroon naa teel bu teel bu teeloon moom mën naa am mu gën a kii quoi. waaw. léegi yow lan nga gis si si aussi tamit coach bi. ah coach bi. waaw mais na def changement Famara Gueye dañ ko waroon a génne Famara daa waroon a génn bu yàgg daa waroon a génn. loolu nga gis waaw daa waroon a génn dugal Habib Diallo parce que Famara daa sonn quoi te mënul dugal. Mhm. te comme 90 minutes su yéen a ba ba mu des loolu. Mhm. mën na koo génnee. Mhm. dugal Habib Diallo man loolu laa gis ma. mais gis nañ tey xam nga tey moom Thiès dafa low sax la ñuy wax. parce que euh, ñoo ngi ci suñu euh, quart de finale en mai. Ah. léegi te gis nañ ni gars yi dafa mel dañoo xaw a découragé. waaw da leen découragé kay parce que li gars yi wane woon la. waaw ah, li gars yi wane woon moom. gars yi lan la ñu wane woon. ah parce que seen trois matchs yëpp mënuñoo fexe ba marqué bii. mais bii bi nga yaakaar dégg na tamit gars yi dégg naa tamit bii dañ leen dañ leen teel a ñor dañ leen liggéey. ah la ñor dañ leen liggéey suñu joueurs yi. ah man loolu kii gëmuma ko de. ah gëmoo loolu non non ko de loolu ci football bi.